asalaamaaleykum man euh, maa ngi tudd Bara Sow doon président fédération nationale Lawbe di Sénégal et de la diaspora conseil à la présidence palais de la République doon vice coordonnateur bu Macky 2012. waaw xam nga li gën a am solo mooy euh, Sénégal Touba moo ëpp ay lawbe ci Sénégal comme élection yi nga xam ne mooy ñëw euh, di élection député yi te président Macky Sall bëgg pour am assemblée nationale majorité bu yaatu pour mën a àggale liggéey bi nga xam ne moom la yéene Sénégal rawatina fii nga xam ne mooy Touba moo tax tey ñu def benn général di ñëw préparation pour ñu waxtaanee jeudi bii di ñëw euh, récemment bi ñu war a def lawbe yi nekk Touba yëpp ñëw euh, ñi nga xam ne ñooy tedd liste sëñ Abdou Lahat ñëw. Galas Kaltoum ñëw euh, Matar ñëw ñëpp ñëw ñu teewe ndaje moomu ñu waxtaan lawbe yi massifé wu def porte à pour liggéey pour président Macky Sall am ndam fii si Touba. parce que président Macky Sall kat boo gisee démb bu ñu demee si Serigne Mountakha ànd ak tedd liste bi Mimi Touré dane ko fa ma nekkoon laa nekk ba léegi jàppale gi ma ko doon jàppale laay ko jàppale ba léegi te toujours dañuy am élection. gañe ko te Touba du si bokk mais loolu dafa doon gàcce si ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba di jàppale président Macky parce que képp koo xam ne dëkk nga Touba di jàppale président Macky président Macky Sall jox na la cër kon élection yi président Macky mën na koo gañe te du gañe Touba mais loolu gàcce la si ñun kon nag bu ñu sañoon ren élection député yi président Macky Sall am fi large majorité fii nga xam ne député yi nekk si département bi yépp ñu gañe ko loolu mooy doxu lawbe yi ñun dinañ si dox dinañ si wax jàpp si ànd bokk ndey bokk baay tey ñun ñu bari lañ ci département bu Mbacké loolu euh, dafa am solo parce que boo xoolee li ñuy contribuer dafa bari mais lépp luy dugg tuubaa ñoom duñ si gis seen bopp mais duñ si gis seen bopp gi ñoom ñoo ko teg suñ bopp ñun lawbe yi parce que dañu organiser wul dañu informel léegi nag à part de élection yii bu jàllee dinañ ko organiser ba kenn ko ne gox ba nga nekk ñu organiser la ba lépp luy duggati muy ceebu màggal muy financement yi muy DER bi lépp dinañ fexe ba nga xam ne dina àgg si jigéeni lawbe yi dina àgg si jeune lawbe dina àgg si magu lawbe yi loolu nag si lañ bëgg a dox jéego yu metti parce que lawbe dafa doon loo xam koo xam ne kontéwul si état mais li nga xam ne moom day ñëw si Sénégal ñoom tamit am nañ si droit mais Lawbe boo xëyee rek danaan damay daani doole pour jox sama njaboot te xamul ne li état bi joxe wàllam la parce que day contribuer day fay TVA dafa bëri ay moodu moodu Lawbe yuy voyager donc loolu lañ bëgg a organiser leen ba wan ne leen ne kat ñun si réew mi lañ bokk te dañuy contribuer kon lépp lu ñëw dañ see war a gis suñu bopp. xam nga bant bi dañ siy am jafe-jafe mais sama mbokk Lawbe yi boo leen gisee du ñu yett garab bant bu tooy parce que bant bu tooy boo ko yettee day day day toj bu ñoom bant yu wow la ñuy yet mais boo xoolee euh, euh, bu ñuy joxe permis yi dañ leen di tëb te ñoom ñoo koy ñi koy jox ñoom ñooy dem peser ji ko di ko yet au lieu que nag ñuy joxe permis yi ñi nga xam ne dañ koy jël di ay commerçant lañ nañ ko jox ñi nga xam ne ñoo koy pratiquer di ko yet parce que métier mi mi ngi commencé disparu parce que mënoo jël dem jëndi bërigo bant ñaari junni ah bëgg sa yett ñeenti tuqi kafe jaay ko toq ñeenti téeméer looy am bu yàggee dala ko dul jaral da ngay déem a defi dara ndaw yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo juddu léegi jatt mi en euh, intéressé tu leen te bu yàggee culture boobu day dispari kon nañ ñu dimbale euh, état bi organisé wu ba bu ñuy jox permis ñu génne quota lawbe yi nga xam ne dañuy raison bu ne dina ne am nañ quota tel ñu jox leen seen i bant ñu organisé wu nuñ koy joxalante seen biir mën koo yatt pour culture boobu mën a des loolu daal maa ngi siy dox jéego yu bëri maa ngi siy wax ak le ministre euh, environnement maa ngi siy wax ak aussi le directeur eaux et forêts béy di di ko jaajëfal bu baax parce que toujours bu ñu amee ay jafe-jafe dinañ ko si gis waxtaan seek moom euh, mu intervenir si kon daal loolu lañ bëgg ñuy jox lawbe yi quota bi muy ñu siy organiser wu ñu bañ koo jox commerçant yi parce que daal vraiment métier mi mi ngi commencé disparu daal un mouvement national lañ yor la fédération nationale lawbe du Sénégal et mi ngi fépp si Sénégal ak si diaspora bi mais comme ñun dañoo commencé euh, tey jii fii si Touba li ñuy wax mooy euh, li kilifa yi woote rek muy jàmm nañu am jàmm te xam ne ndam di ndamu Sénégal la ñu respecté te joxante cër te xam ne élection yi wax ju ñaaw gañewu ko xeex gañewu ko xuloo gañewu ko na kenn ku ne dellu si dem say nit convaincre leen wax ak ñoom bu boobaa di nga xam ne kat bu euh, le 31 jotee euh, euh, kenn ku ne la nga jëre la nga jire ngay saxle mais dama xam ne président Macky Sall liggéey bi nga xam ne liggéey na ko fii si département si région Diourbel rawatina Touba dafa war a am majorité fii si Touba parce que Ila Touba bi rek boo si jaaree doy na sëkk boo xoolee canal bi canalisation Touba ay milliards yu bëri la ci def boo xoolee nab bi Euh, li wër jumaa ji ba si armeel yi tuubaa yi nab bi dafa yéegoon ba naroon na doon dex ba si kër sañ Saliou bi ko euh, sëñ euh, Bass Abdou Khadir waxee président si lañ indi ay sondeur ba nga xam ne ndox mi wàcc na sinon dañ doon jekki-jekki li wër jumaa jeeg li wër Touba ak kër sëñ Saliou yëpp dex lay doon kon loolu président Macky Sall da koy liggéey te du ko wax kon nañu xam ne kat président Macky Sall ku bëgg senegal ku bëgg tuubaa la taalibe sëriñ Touba la daaru xuddoos la bokk kon nañu ko ñëpp jàppale xam ne kat li nga xam ne moo fi teew moo gën a wóor li nga xam ne ñëwagul te xamoo lan lay indi kon nañu jàppale président Macky Sall te euh, wax Ousmane Sonko na bàyyi affaire xeet affaire u xeet affaire waaso ñun lawbe yi bëgguñu di ko dégg parce que mënoo lépp sa communication si xeet ak diine ji bërki démb la xas géwél yi tey mu ne waa Casamance président Macky Sall da leen a bañ xanaa dafa fàtte directeur aéroport ah xanaa dafa fàtte Benoît Sambou xanaa dafa fàtte ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. président Macky Sall bu bañoon Casamance du jël ay doomi Casamance dénk leen lu toll ne aéroport international bu dakaar bu Sénégal kon nañu bàyyi affaire waaso nañ bàyyi affaire xeet ñun ñëpp ñoo yam ay sénégalais lañ parce que bu ñuy compter eh, carte yi. duñ ne carte bi carte lawbe la duñ ne carte bi carte kasan euh, joolaa la duñ ne carte bi carte séeréer la carte sénégalais la ñuy compter kon loolu mooy li am solo am réew boo koy ut bul yee fitna yàlla rëbb na ko yee fitna wasalaam